c'est la référence. asalaamaaleykum mbokk yi tuuti rek ñu jukki leen di ci gën a bokk na ci fédération nationale jamiyatul ansaarul diin wane na ni ci diine rek la mëne waaye itam wàllu développement du yokku tey yëngu ba tax na rek lu tolloo ko ñaar fukki regroupement wu jigéen financé na leen ci lu amul benn intérêt ba noppi nag fas yéene leen a gunge ba ñu àgg mu jëlaat neneen le président ba di Cheikh Mouhamina Niass xamle mooy la leen bàyyi jàngaloon Babacar euh, Dieng thème bu Kabatooki ci lu dul yàgg dara dina daloo ñaari salle de classe ci ndimbalal njiital Baye solution di Cheikh Baba Diallo bu Kabatooki ngir gën a ñoŋal nekki ne ndongo yi teg nañu xeer bu njëkk ba ci njeextalaay bés bi ñu génn ci teewaayu mbooloo mu bare bari daa ngeen ko dégg ci biir xabaar yi gëstu bés bi tey ji mi ngi ñuy yóbbu ci jaaykatu fëkk jaay yooyu wër ak seen ay pousse-pousse ngir daan seen doole boole kook di dund jafe-jafe yu métti tàggaleeg mbedd ma daa ngeen leen dégg ci biir xabaar yi ca bitim réew ci roppalaanam la ñuy dugg moom Cheikh Tidiane Sarr tàggat yaram sëriñ Moussa Kane li yëglekaay yi xëyee ji mbiru El Hadji yi xabaar yi daal di buur ñu ñaanalante wala tàlloo lu ñu dikk ak yéen ci attal gi ak farfàcc gi gannaaw bàkk bi lay doon Le journal Ndeye Khady Sadio dal leen ak jàmm mbokk yi yéen itam Alfayda la référence internationale ngir xabaar yu leer te wóor kaddu gi di bàyyeeko fii ci meuble Cheikh Imam Sène si si studio Alioune Momar Lo El Hadji Libas Mbaye mu jënd ak man ci wàllu xarale gi ba dégg-dégg bi mën di leer waxtu wi ñu nekk nii kenn mënula dugg ci benn l'école te takkoo masque rawatina ca daara ju kawe ja ñu duppe université virtuelle UNO bu Kaolack dugg fa jafe lool Cheikh mu takku dañu ko fi tere ñàkk takk masque moom mayuñ ko kenn ci barab bile ab liggéey bu ne këcc ci buntu kër lépp mooy ñu respecté mesure barrière yi kër docteur wax ne mooy muccale ci mbas mi. kenn du dugg bi di solo mas di jaaroo fay laab mais raxas say loxo ba mu set nga soog a dugg si biir mesure barrière yi aussi ñu ngi koy respecté si biir. ñu ngi ci daara ju kawe ñu ñu dippee université virtuelle ENO bu Kaolack ñi sàlloo kilifteefu barab bi nee nañu jël nañu bépp matuwaay boo xamante ne day tax étudiants yi mucc ci mbas mi Babou Diouf mooy administrateur bi. respect boobu noonu dañ koy observer à la lettre d'ailleurs sax boo solul masque doo am accès si biir te aussi sol masque bi dafa nekk une obligation pour yow nga dugg sax def examen dispositif waaye dañoo yor ay masques dès le jotoon nañ à peu près 5000 masques yoo xamante fii lañ ko yoroon au niveau de l'ENO boo ñëwee dañ lay jox masque jot nañ gel jot nañ aussi euh, savon yëpp ak ay mouchoir def aussi benn basin si bunt bi nga xamante ne kuy ñëw rek boo ñëwee ba foofu da nga raxas say loxo fomp say mouchoir boo yoroon masque ñu jox la ko nga dugg ndongo yi nga xamante ne ñooy jàngee ci mais am na ña ngi ñuy ne ay personnel lañ ñoo ngi si veillé bu baax da demee ba nga xam ne war a dugg salle war a def ay examen def évaluation boobu noonu ça devient automatique ñoo ngi sant yàlla bu baax amaguñ si benn cas effectif bi nga xamante ne nag moom leen fi fekk mu ngi toll ci ñaari junni étudiants ak téeméer ak ñeent fukk juróom benn 2146 étudiants mais cette année année, nous comptons recevoir 2500 étudiants, ce qui veut dire qu'au total, nous aurons 4700 et quelques li tax na mbooloo moom mënu fee ñàkk dajaloo waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooyar wàll ka kilifteef gi fexe ba soppi doxalin ngir coronavirus duñu ko fi am. jox la cër Cheikh Tidiane Diagne di seg sa micro foofee ca université virtuelle du Sénégal ña fay jàngee nag bokk nañu ci yaakaaru réew mi ëllëg bokk itam ci ñu gën a waaye itam dàq fi ah, jàng ànd ak ngir bañ dajaloo gi am nañu kaaraange gu mat sëkk bu ñu ci Mouhamed Ndiaye di secrétaire général fédération Balenta Kër Cheikh Tidiane Diagne. bien euh, bi ak les membres du Benno aussi administration aussi dafay def sensibilisation bi parce que boo xoolee tey ji promotion huit bi mooy nouveau bachelier yi dañu war ñëw pour inscrire maintenant pour plus de sécurité donc ñu ne leen da ngeen jël rendez te da ñëw nga jël rendez parce que bis ak ku nekk ak heure bi ngay ñëw kon cela veut dire duñ fa fekkante lu bari loolu dafay participer si mesure barrière yi ba léegi voilà aussi dañu faral di jokkoo ak médecin yi nga xam ne ñu ngi si hôpital yi comme monsieur Ngom damay jokkoo moom lu bëree bëri par rapport à ça nekkee ne affaire dafa yokk wala fu mënta toll man dinaa si xam dara ba nga xam ne sensibilisation dinañ xam ne moom mooy avenir tey pourquoi parce que juróom at la am nekk tey ñaareelu université bu gën a peuplé bu gën a bëri nit aussi nekk ñaareel si wàllu résultat donc forcément dina am ay jafe-jafe parce que dami askan bi xamuñu ko noonu donc comme que xamuñu ko étudiant bu si ñëw dañ lay jéem a insérer wan la nan ngay def ba nga xam di nga adapté ak système bi maintenant adaptation boobu noonu dafay am ay problème parce que tamit réseau bi day bañ wifi bi cest bi day xaw a doy aussi étudiants yi dañuy jooy machines yi nga xam te ni nekkul jumtukaay yu war daaw am na mais ren yi ñun dañoo jóg dem ba si administration bi dem aussi ba si ministre ñu toog ak moom jox ko suñu doléance wan ko ne ko lii moom promesse yu mu ñu wax dig ñu ay dig yu bari maintenant ci dig yooyu gis nañ ne am na yoo xam te nii mu ngi réaliser am na yoo xam te nii tamit départ agul maintenant xam naa ne ci biir mois bii nii danañ jéem a ak moom beneen réunion toog jéem a a loolu noonu Mouhamed Ndiaye laata réunion ba nag dañ leen di bàyyi dem seeti waa Kabatoki teg xeex bu njëkk ca Semba ngir tabax fa rek ñaari salle de classe Cheikh Baba Diallo ci lëkkaloom ak ay partenaire am pour ñaari classe yoo xam ne yéene nañ ko tabax fii ci CM Kabatoy tabax yu mel noonu yi nga xam ne dafa méngoo ak jamono dafa nekk lu war pour ñiy jàng ak ñi jàngale pour ñu mën a am jàmm di am bànneex ci li ñuy def parce que condition yooyu dafa leen permettre ñu mën a nekk ci jàmm pour mën a joxe li ñu bëgg élèves tamit mën a recevoir xam-xam bi ñu loolu nag moo ñu permettre ñun ñu fexe def tout def suñu doom yi ci bonne condition d'étude pour si ñoo doon avenir ëllëg moo tax ñu ne nañ jéem def suñu ba tabax taxawal yi gannaaw ba ñu ko CM Kawtoo ki président wu parents d'élèves yi ak administration bi ñaanee ndimbal pour ñu tabaxal leen ko moo tax ñu ñëw tey pour tabax li mu nekk loo xam ne tamit aussi li tax ñu def ko bokk na ci ne état bi mënul def lépp il faut ñun au niveau communautaire ñun ñu investir jéem investir si suñu localité pour fexe mën a taxawal dara loolu moo ñu pousse pour ñu ñu taxawal yi waaye tamit ñu wan ne classe yi ñu def nii dafay dimbale génération yi di ñëw ak yeneen génération yi di ñëw looloo tax ñu wan exemple suñu rakk yi góor yi ak yi jigéen ne leen kat fexe leen def tout ba def fi lu baax loo xam ne ëllëg dina njëriñ ay génération générale waaw financement bi moom amuñ benn bailleur amuñ dara ñun suñu lijjanti ak ñi ma yàlla booleen mbokk taal bi xam ne tout le temps maa ngi nekk ak ñoom lu ma dugg ñu dugg ci lu ma génn ci ñu nekk fii Sénégal ak tamit yàlla def na ma am ay mbokk taal yu tubaab nga xam ne su ma leen waxee ne am naa projet école bi taxaw bokk ñu ci ñu njëkkoon nekk président parent d'élève Tadji Ba ku ko xam-xam ne ci wàllu politique depuis PS bu njëkk ba ba léegi muy jéem lu ne pour développer ko. mu nekkoon euh, ñangank daara ja nag sàkk nañu ci ñëpp ngir ñu roy ci jëf ji ba semb mën a weesu foofee mu nekk ànd ak di wane seen ak mbégte Abdoulaye Ndoye di professeur teewaloon fa principal loolu ñu teewlu ko ak noa bi yaay tey bés bi ñëpp kontaan parce que kilifa yi teew fi ñëw am solo mooy acte bi rek parce que acte bi moo jur lu ëpp lii parce que àdduna loo gis rek ndànk-ndànk comme vraiment cheikh bi mooy Cheikh Baba Diallo vraiment di sama xarit bi ni ku baax bu defee lii day tax xale gën a sawar xale day roy tey njàng moo dëkk xam-xam moo dëkk dëkk mënut a avancer sans xam-xam loolu si doona loo xam ne vraiment maa ngi koy rafetlu parce que nitu dimension la nit su waxee rek nga xam ne kii nitu dimension maa ngi koy rafetlu ñu koy gërëm di aussi gërëm le principal vraiment mooy ni ku baax di liggéey ñu jàppale école jàppale dëkk bi waaw 733 xam nga tey dañ ne école milieu le milieu immédiat école bi principal moomu ko école bi AP moomu ko école bi monsieur Ndoye moomu ko mais école bi c'est l'école de la communauté parce que école bi bu doxee bu ñëpp la kon ku nekk da ci war a jàpp pour que mu am épanouissement loolu c'est possible parce que compétence yi mu ngi fi moyens yi mu ngi fi donc loolu mën nañ ko def dans les plus brefs délais ñaari bi di Pa Djibi Ba ak bi tey ka leen fa teewaloon nag di seen doom moom nee na mbégteem foo ko natt rek weesu na ko daadu bi tey ak noa bi yaay di doom si ñaar ñëpp parce que Pa Djibi Ba ak sam papa ay kóllëre leen ñoo doon am fii lii tey bu taxawee ñoom ñoo ko fi taxawal comme ni ñu ko waxee léegi di ñaanal euh, Pa Barham député fa mu jëm ak paa Sakho ak Pa Waky Konaté fañ jëm ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon fii di koy def fañ dem yal na leen gënal fii ñuy jógee te yaakaar naa ne lii bu ko sëñ bi defee ay tànk papaam yu baax yu doon def moo tax mooy mu ñëw tey di def lii muy def fierté la bu baax a baax a baax a baax parce que lii rek dañuy ñaan yàlla tey amaana tey buñ fi nekkee woon leneen dinañ rus mais sant yàlla ba nga xamante ni tey jii ñu ngi aw seen tànk parce que nee nañ doom bu màggee bu doxin doxin baay dëbb dëbb baayam tey kon yaakaar naa ne sëñ bi lii mu def fierté la tey bu ñu rombee duñ sëgg dañuy sigg looloo tax sànq ni maa ngi wax le président Këbëtoog conscience képp kuy doomi Këbëtoog yaa ngi si biir école primaire dafa génnee ay cadre CM bi tamit dafa génnee ay cadre kon ñooñu ñëpp tey suñu yaakaar naa ne suñ boolee seeni loxo ak seen euh, gox rek yaakaar naa ne war nañu mën a tabax seen ëpp lycée démb rek maa ngi woo xarit bi ma ne ko Cheikh Baba di mun naa ma ne ko am lu mu def mu ne ma ma ne ko tuddee ngi jàng cadre nga France yaa ngi liggéey nga def li Cheikh bi sama papa mooy sama référence sama papa école 2B yeneen nag yeneen nag yeneen tey soo naa ma ne ko fa place parce que da kontaan tey dem ba sa papa fuñ tuddee ñu baax tuddee ko fa naa ma ne ko fierté la dañuy ñaan yàlla kay ñun tamit aw fu sama papa doon aw loolu la ñu mais fierté la di lancer nag appel encore une fois de plus ñëpp nag parce que Këbëtoobi tey jii bu ko nit ñi xamee rek c'est parce que doomi dëkk bi ñu fi dëkk tekki moo tax ñu xam ne waaw di ñaan yàlla nag lii bu mat un mois man de su ma sañoon sama mbir bépp du am un mois ñu ne classe yi nañ jël defaat fi cérémonie bi jël caabi euh, dañuy des ci mbiru njàngale mi ba tey ONG Saïd Seva may jàppale rek xale yi yooyu laago yooyu jàngee ci daara yu ñu duppee école inclusive moom ma ngay wéy di leen jàngal di leen jàppale ñoom ak ña leen di jàngal ba du ñu am benn gàllankoor ci jamonoy mbas mi ñu ne sàkku itam ci nguur gi ngir mu dugal ci loxoom na ma ko defee ak yeneen daara yi madame Salimata Bokoum ñu ko koog noa bi yaay. Saïd Seva dafa nekk organisation boo xam ne vision mooy que ni kenn warul am feebaru laago ci bët en particulier su fekkee mën nañ ko faj beneen pàcc vision bi mooy personne handicapée yi dañu war a nekk ci même niveau si wàllu ak ak yelleef que ñëpp ba pare jouer seen rôle bu baax nag ci société bii ñu nekk loolu moo tax Sight Savers di def programme yu bari ci wàllu santé éducation ak euh, participation politique et citoyenne ci wàllu participation politique et citoyenne ñu ngi renforcer bu baax association yi nga xam ne ñoo nekk euh, ay membres yu Waylaago pour ñoom ñu nekk ci kanam défendre seeni droit ne lii mën na nekk donc ci cadre projet d'éducation inclusive bi nga xam ne ñu ngi koy def ci Kaolack Dakar ak euh, Louga ci Covid bi bi mu ñëwee def nañ lu ni mel fexe nañ ba xale yi way laago yi utiliser technologie seen njàng bañ a taxaw bu ñu ko defee wane nañ ne mën na nekk ñu ngi xaar itam état mën ko généraliser parce que xale yi way laago yi nekkuñ ci région yooyu kese ñu ngi au niveau national te ci contexte Covid bi njàng moom nga xam ne nii njàngum à distance la dafa gën a justifié wu a wone pertinence am bu ñu jàppalee jàngalekat yi jox leen yi ci war jàppale école inclusive loolu nekk war nañ ko mën a donc généraliser au niveau national pour que yeneen xale yi nga xam ne no nekk si yeneen région yi te am way laago ñoom tamit mën a jot ci loolu. agsi nañu ci gëstu bës ba ñu junjoon ci bopp xabaar yi xamatuñu fu ñu uh, jëm ñoom jaaykatu fëgg jaay yey lal ci mbedd yeeg si ney pousse-pousse amuñu kaaraange du bërëb ba ñuy jaayee tax rek ñuy woo kilifa yi ngir ñu taxaw leen ba ñu am bërëb ba leen di tàggaleek mbedd ma Cheikh Tidiane Sarr. ci mbedd mi la ñuy lal ñoom ay jaaykatu fëgg jaay lañ ab pousse-pousse lañ yor teg seen yére yi tasaaroo nag daanaka ci centre ville bu Kaolack yëpp yaa xam ci côté marché central wala sax fépp foo xam ne wër na commune bu Kaolack muy liggéey bu méttee métti nag bu ñu sukkandikoo si seen njiit moom du Mbacke ñaw ñu fekk ko mu tiim fëgg jaayam sol ab costume bu bees. ñun suñu liggéey mooy jaay ay marchands tablier lañ. donc amuñu place ñu ci mbedd mi. donc loolu mooy suñu jafe-jafe. seen jafe-jafe yi nag tey foo ko séntu weesu na ko ndax su weesoo jaarale am ñu yaakaar fenn fu dul fii franchement képp koo ci yoru soxna yaay ak say parents te yow rek lañu yaakaar wax dëgg yàlla fii ay jafe-jafe lañ fiy dund à chaque fois des fois da dagg sa bal sax war jaay mu génn mais pour mu génn day jafe parce que le ngay jaay bay kii police yi ñëw na la jugal nga jël sa pousse pousse avancé xam nga da dem ba doo xam foo war taxaw da dem ba da ngay ne doo citoyen te pourtant ñun ñëpp ay sénégalais lañ ay citoyen lañ ki nga xamante ni moom moo ñu jiite ñun ñëpp muy le président Macky Sall war nañ si mën a maanaam jàpp ci bu baax xaw ma lay def ba jéem a lëkkaloo ñi nga xamante ñoom ñoo yor fii ñu jéem ñoo recadré jox ñu site boo xamante bu ñu fa fekkee kenn ñu ndax tey dinañ ñu naw tablier yooyu nag ñu bëri ci ñoom doon ay ndaw ñu ne dañoo bëgg a des fii si senegal tekki fii jàppale seen waajur bëgguñoo jël gaal yi tax ba ñuy sàkku ci kilifa yi ñu gën leen a jàppale si seen nekkin vraiment ñuy demander le préfet ak le maire autorité yi yi nekk Kaolack ñu leen demander site de suñu amee site rek même bu ñu fa dem mbaar wala ñu fay def leen sax mais nag nan ñu recaser vraiment pour que aussi ñun ñu bàyyi mbedd parce que mbedd moom neexul kenn seen balu fukk jaay yooyu sax wala leneen ci lu ñuy liggéey nag lu cher lañ koy jëndee bu ñu sukkandikoo ba tey si seen njiit Mamadou Mbacké Niang boo xoolee que ne balu Amérique wala Angleterre yi ñoo ci a seer ay cent quarante mille mais aussi am na aussi tamit ay bal yoo xam ne si ay soixante quinze jar yooyu ñoo gën a yomb Cheikh Tidiane Sarr seen njiit la nag dëggal na ni seen xel demul benn yoon ci gaal yi ñoom ñetti junni commerçant ya waaye nag kuréel ga leen takkee ma ngay def kéem ci lay kàttanam ngir mën a wàccook li nga xam ne rek moom mooy yoon ànd ak di xam ne ne ay doomi réew mi la tax rek ñuy soññ ñi nga xam ne rek ñoom ñooy l'autorité dëkk bi Mamadou Mbacké ñoo Cheikh ak Cheikh Tidiane Sarr. boo xoolee kuréel gi cercle des commerçants marchands tabliers am na presque lu ëpp 3000 membres parce que boo xoolee fii ba gaz Nioro fii ba marché Mérina ku fi nekk ci mbedd mi rek ñun am nañ sa photocopie carte d'identité di def ay réunion et tout te aussi association bi adhéré nañ waaw mais leen lan mooy seen problème yéen ci mbedd mi ngeen di lal te amoo leen place te ay jeune lañ. boo xoolee sax am na ay quelques boy fi nekkoon dem ci gaal yi vraiment ñu dégg ci ay loo xam ne vraiment naqar nañu ay décès après ñun aussi nag ñu oote waat consulté wu ne nag vraiment ay dem ci gaal yooyu jëru ko nañ leen toog fii daan suñ doole tandis que nag police tout le temps mi ngi dàq ñu daw parce que aussi xam nañ ne ñun ñoo nekkul ci yoon mais nag amuñu feneen fu ñu jëm mais nag vraiment ñu ngi koy boole nag ak di moytu di nekk ci trottoir bi bàyyi tali bi bàyyi oto yi ñuy jàll loolu moom tout le temps dañ ci dox suñu waar di bañ vraiment anarchie dimbale leen parce que yéen ngeen bëgg a toog liggéey waaw mën a dimbalee organiser leen nu ñu mën a dimbalee vraiment dinañ ko jël kooku ñu ngi soñ autorité yi le maire ak le préfet di Kaolack ñu leen ci soññ di leen tàllal loxo di leen ñaan ñun seen njaboot lañ parce que aussi ci réew mi lañ bokk vraiment lu métti métti métti ñu ngi dagg taxi journalière mu nekk juuti yi kon donc ñun même bu dee dara sax ñu ngi koy participer ci commune bi te aussi bu ñu fàttalikoo le fi ootee pour ñu raxas dëkk bi Kaolack muy garage ñor rek ñun ñoo fa ëpp ay membre yu ñu fa yóbbu parce que saison nañu CRD bi dem ñoo fa ëpp lu ñu fa yóbbu ay membre parce que xam nañu ñun aussi dañu war a defar mais nag il est temps que Kaolack ñu bàyyi mbedd mi ñu nekk loolu ñun la gën a naqar te aussi vraiment ñu ngi si tàllal loxo képp koo xam ne organiser nga ñu autorités yi pour que ñu bàyyi mbedd mi rek ñu ngi lay tàllal loxo te di la xaar nga ñëw a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. ñaareelu pàcc bi junjoon nañ leen ko ñu ngi jag leen mbiru koom gannaaw diine ji fédération nationale jamiyatul ansarul din soobu na ci wàllu développement jaaxee ko ci gunge ay euh, jigéen ba ñu mën a moom seen bopp tax rek lu ëpp ñaar fukki regroupement financé nañu leen ci lu amul benn intérêt ana fan lañ doon amalee ndaje mi Cheikh Ababacar Dieng. ñu ngi doon amalee ndaje mi ci résidence bi ñu duppee Ablaye Bayero fédération nationale bi jamiyatu ansarul din ñoo commencé teg ay acte jëm ci wàllum développement. ne xalifa bi lii la santaane ci lancement bi rek mat na ñaar fukki groupement yoo xam ne ñoom ku nekk jox nañ la dara cheikh Munhamina ibnu cheikh al islam mooy président national bu fédération jamhiyatu ansaaru diin bu Sénégal. waaye dafa waxoon ne fekkee na ngaa bëgg a def junne yëf waaye moyen bi nga am benn la permettre nga def bul xeeb benn boobu tàmbali kon nag ñu ne ñun duñ fi toog rek di oo nit ñi état bi di sànni xeer wala nangam organisme yi ñëw leen nangam ak nangam ñëpp bëgg nañ ñu ñëw waaye nag ñun dañuy tàmbali suñ bopp li ñu am ak néew ñu dajale ko ñu financer suñ jigéen ñi ñu commencé di liggéey te nag liggéey bi sans intérêt la dañ ko leen di jox ñu liggéey delloo ñu jox ko ñeneen suñu objectif ci jigéen ñi mooy jigéen joo xam ne ñu ngi départ tey di la jox dañ lay gunge ba nga am autonomie bi ba mën a dem ak sa bopp ñu génnee la dugal keneen koo xam ne dañ koy encadré ba mën a dem ak boppam Baye Niass moo bindoon ne taalibe yëpp takkoo ci ay daayira daayira yu bokk ca ay bureau départementaux fédération départementaux yooyu la am ay bureau régionaux ba keroog ñuy jox ji ca national ne rek la ndekete développement moo ci fees dell lii mooy ansaaru diin sëriñ Aliou Cissé Niang sët la ci Baye Niass hit bi la ci département bu Kaolack. li ko waral mooy jëmitu ansaaru diin bi Baye Niass sosoon wala bi mu digle woon taalibe yi def ko ñu def ko lu jiitu indépendance Sénégal lu jiitu at yu bëri ba muy nosee di tëral lu mel ni lii ñi xamutoon àddina am na ñu foogoon ne kii dafay gént rek di wax waaye ci àddinay tay bii ku da nga xam ne ne ki doon xalaat doon wax xam na ko te jàpp nañ ne àggaguñ ci kaari lim doon imaginer pour mbooloo mi doxee pour dimbalanteeg topp mi dimbalanteeg réew mi dimbalanteeg askan wi bokk ci ñi développé Sénégal. mbootaay yi jigéen ñi ak gone yi am ay projet financement yi ñoom ñoo ko tax a jóg donte nag am na ay sart yu ndaw rek yuñ lay tegal bi jiitu ci condition yi nag moo di ne da ngay nekk membre Ansaarudine Adja Lalla Fall moo jiite mboole mi soxna yu bokk ci biir fédération ci biir réew mi. am nga ci droit am na nag ay charte yu ñu teg na xam nga doo ñëw rek jox ko xaalis noonu rek pour sélection bi am na ay point yuñ teg da ngay bokk jamiyatu ansaaru diin d'abord mu loolu mooy premier point bi su ko defee li ci des nag boo ñëwee ñu expliqué la tegal suñu charte soo ca d'accordee ñu lebal la lebal bi amul intérêt amul dara bàyyi la nga liggéey weer bu weer boobu jeexee nga doog a rembourser. financement bi nag comme dañuy ba ci lancement bi ñu ci mboolem 45 fédération départementaux yi ci biir réew mi. jox la cër Cheikh Babacar Dieng na bàyyi daan doxalee ba moom boppam ci fànn yu bari xalifa bi itam taxawee noonu loolu bokk na ci li leen ñaax ba ñu bëgg a defar seen àddina bu taalibe yi rawatina bu jigéen ñi Cheikh mun xamina Niass di njiit la ma ngi ñëwaat ci solo ndaje mi ci micro Cheikh Babacar Dieng. solo ndaje tey bi alhamdulilah rabbil aalamiina dafa am loo xam ne Baye daf ñu koo jàngaloon bu yàgg. ñu war koo concrétiser Baye daf ñoo waxoon dañu yàlla dafa wax ci alquran ne mënu dégg-dégg gi mu ci am mooy yàlla daf ñoo bëgg a wax ne ku mënta ñàkk lekk mënoo ñàkk liggéey ku mënta ñàkk dee mënoo ñàkk jaamu yàlla bàyyi ci boppam joxe ci exemple liggéey def ay tool yoo xam ne tool yu yéeme la moom moo ko wax ne na tool yi gerte waxut sax mboq waxut sax ci Sénégal bi fi gerte njëkkee ñëw ci Sénégal mu ne moom ci sëriñ si njëkk a tàllal mbayum gerte ci Saalum ba tubaab bi ñëw di ko yéem di ko seetaan xaj na ñun ñu jàngee ci ne xaj na bàyyi li taxoon mu moom boppam moom opinion a a a wala baaxul ci diine ku ko wax ak koo mënti doon mu mën a weddi wala projet bi bu jógee mu mën cee maandu bañ cee dugg c'est parce que xaj na lim amoon autosuffisance alimentaire moo taxoon kon ñu déggee ci nag ñu ñoom am nag xalifa bu bees nag bu ñëw xalifa bu nekk am nga priorité ku ci nekk def nga li nga war a def mais xalifa bii moom daf ne priorité mooy soññaat nit ñi ñu dellu ci wàllu liggéey parce que nag comme fi mu ne Medina wax dëgg yàlla bu fekkoon ngoon wala ngoonu ajjuma da nga xam ne fii jaamukaay yàlla la xam-xam bi ñi war a wax bu waxee danañ xam ne xam-xam taxaw na ci àddina bi yépp fu ñu mënti taxaw mu ne kon nag léegi lan moo des mooy ñu jublu nag ci suñu wàllu àddina fexe ba liggéey surtout nag liggéeyloo suñ jigéen ñi parce que jigéen ñi ñooy sookul bi nga xam ne ñoom ñoo téye société bi bu taxawee société bi taxaw te jigéen ñu ndóol wala ñuy am soxla di dem di ko ñaani wala ñuy dem di taxawaalu di dugg ci li a dugg loolu mooy commencement wu yàqu dara. Cheikh Mounhamina Niass regroupement jigéen ya jotee ci financement yi xam ne nañu ànd nañoo ak mbégte di woo ñëpp itam ngir ñu ñëw bokk ci jamiyatul ansaarul diin xam le itam ne sas gañu leen sas daañu ko wone ba mat sëkk ba nga xam ne rek tool yi daañu naat ñu teewlu leen ci micro Cheikh Babacar Dieng. ay groupement céréales locales yooyu rek ku ci ne bëri na daal luñ ci lijjanti ci biir financement bi di ñaan yàlla kenn ku ne commencé ci bisimilah ko rafetlu rek ku ma gis ne laa tudd. mii man bokk ci jamiyatu Ansaarud-Din département bu Kaolack. waaw ñu ngi sant yàlla rek encore une bi ñu boolee ci ñenn ñi nga xam ne jamiyatu Ansaarud-Din financé na leen tey ñu ngi am contentement tey biñ ci bokkee di woo képp nag kuy taalibe Baay nga ñëw bokk ci jamiyatu Ansaarud-Din ndax mën a am ci financement yi nga xam ne jamiyatu Ansaarud-Din ñu ngi koy def ñu ñaan yàlla yàlla yombalal ñu ko barkeel liñ fi joxe boobu benn yoone buñ toogee fi millions yoo xam ne ñu ngi koy séddale taalibe Baay incha allah dinañ ci liggéey ba nga xam ñun dañ daan liggéey rawatina tey bi ñu joxee tey financement bi kon gën nañ ñoo sas nañ gën di liggéey danañ liggéey incha allah waaw ñun ñu ngi yëngu ci transformation céréales transformation fruits et légumes transformé lépp lu ñuy bay rek ñu ngi ciy yëngu incha allah ñoo ngi ñaan yàlla daal yàlla yombalal ñu lépp kom comme dañoo envisagé woon di bay fi ne nii comme financement yi génn na moom tool yëpp dina naat incha allah. Adja Hélène Sall waaw waaw ci financement yi laa bokk ah sant yàlla rek ñu fekk ñu ngi liggéey ñu ngi ci GIE bi les femmes de la fayda donc bu ñu financé dañu gën a góorgóorlu incha allah kontaan trop di ñaan mu gën a daal de toutes les ñun ñu ngi liggéey ñu ngi jaay foofu mais ñun aussi suñ bopp ñu ngi def suñu ay njaay suñ petit commerce waaw jigéen ñi ah ñu góorgóorlu rek parce que Sénégal defe naa jigéen ñi ñoo ko amee dañ góorgóorlu rek liggéey te ku bugg a am financement aussi mun nga jokk fii ci Ansaaru Diin incha allah dinañ la woon yoon des ci mbiru koom dem ca fa projet tiers sud de Bayder ñoom nag ñu ngay wéy di suqali suuf si càmbar ko jooyante ko ngir ban baykat bi mën ko jariñoo mooy projet boo xam ne yaakaar naa Union européenne AFD ñoo ko financé mi ngi ci biir Sodagri ci biir projet bi nag dafa am benn permettre aménagement bi ñu war def à peu boobu du permettre bu bees permettre bu yàgg la yàgg nañ ko defar mais yàgg na lool ci diggante bi nag puisque premier dafa yàgg am na pàcc yoo xam ne kenn daw ci bay mu ñëwee nag ñi gis ni pàcc boobu kenn daw ci bay ñi gis am na yoo xam ne ñuy ñëw dëkk foofu téeméer yoo xam ne nguur bi moo ko joxoon Sodagri nguur mi moo ko moom ko ñu jox ko baykat yi mais ñu fekk nit ñi dëkk si foofu tabax seen kër nawet bi passé sax gis nañ ndox bi bu demee ba ci biir nawet bi nit ñi dañuy jóge foofu parce que ndox bi day nangu seen kër dañuy inondé dañuy am inondation ci loolu yëpp. yéen a ngi yi ci Alfayda FM dañuy dem ci mairie bu euh, Kaolack fekk fa doomi boroom kër yeey liggéeyee ca mairie ba ñoom nag euh, jot nañu ci loxol maire ba di Mariama Sarr ndimbal lu am solo ànd ak ñaanal leen atum naataange ñaax xale yi ci njàng mi waaye itam ñaax askanu Kaolack ci digle yeeg tere yi këru docteur ci ndaje moomee ñu deen amal te duppee woon ko arbre de Noël ñu teewlu ko moom Mariama Sarr ci micro Cheikh Tidiane Sarr. lii su amee tey xale yi dëgg la ñoom lañ koy defal waaye bëgg ah ñoom tamit am na lu ñu liggéey ci mairie bi ba tax liggéey bi mën a dox kon seede yooyu dañ koy def ci parents yi mais gërëm xale yi aussi ñaax leen ñu gën a mérité confiance boobu mérité li nga xam ne mooy parents yi coono bi ñuy daj pour ñoom confiance également pour xalaat ne dinañu jàng seen jàng ni mu waree pour ëllëg ñu mën a soutenir seen parents delloo leen jukkal lool moo tax chaque année ñu def euh, arbre de Noël bi mais ren nag dafa nekk ci contexte bu xaw a exceptionnel muy Covid 19 état du Sénégal joxe ay mesures yoo xam ne dañ ko war a respecté muy soreyoo bi takk masque bi raxasu ak saabu saa yoo génnee ah mënul ngay jël saabu respecté lépp li nga xam ne ay tere la bàyyi ko lépp lu ñu santaane ñu def ko loolu mooy message bi nga xam ne message bi gën a fort ci sunu waxtaan bi tey ndax gis nañ ne Covid bi mu ngi gën a avancé ñu ñaan yàlla rek yàlla jëlee ko fi ba bés bi ñuy waat dewen ak jàmm yàlla nañ ko fekkee ñun ñëpp dëtal ko ñu feete ko sans masque feete ko sans lii nga xam ne tey mooy dispositif yëpp ndax fekk na Covid bi jógee na ci réew mi ñu ngi Sénégal ñëpp taxawu ci loolu ndigal yooyu moo profité ci nag pour terminer souhaiter une année 2021 de bonheur mu nekk atum jàmm atum wér yaram atum succès ci lépp lu ñuy soobu at moo xam ne mbay mi dina naat at moo xam ne jàmm dina gën a am ci réew mi ñu mën a gunge son excellence le président Macky Sall ci mission bu réy bi nga xam ne macha allah askan wi ñoo ko ko dee. mu nekkoon madame le maire Mariama Sarr way juru xale yi nag gërëm nañu ko santu na ko sant ko ci loolee mu leen defal. na waaye di wax na rek fompal na leen seen ay rongoñ ba tax na rek ñu doon ko ñaanal yàlla Ali Niang chef de service état civil ak Cheikh Tidiane Sarr. di moo waral jotaay bi muy suñu kilifa gii ci bi madame le de la commune de soxna Mariama Sarr di la wax ne bëgg nañu doon bëgg nañu sax la wax. ñun bu njëkk ba dañ daan seetaan télé yi di seetaan yeneen i structure ak yeneen i corporation di ko defal seen i doom suñ doom yi yàggat ñoo interpellé lool ci ne xanaa papa du ngeen am arbre de Noël yàlla def na nag loolu bi nga ñëwee ci bopp mairie bi ronkoñ boobu moom fankal nga ko parents yëpp lii may wax nag defe naa ku nekk ci dëkk bi seede nga ko depuis 2014 bi ñu fi toogee ba léegi at mu jot kenn ku na kaddu yóbbu ko ci sa kër te

ñaax nag population yëpp ni ko soxna si waxee ni ko madame le maire waxee docteur yi ñoo xam li baax ci ñun ñoo xam li ñu jik ak li ñuy wàññi bu ñu waxee ñoom ci déglu président de la république ne nañu respecté mesure barrières yi nañ ko respecté Macky Sall joxe na ko ci population yëpp mais Kaolack gi ku fi yeewoo kii mooy sa Macky Sall parce que mooy maire de la commune de loolu la yàlla def ñu gërëm ñu ngi sant yàlla nañ ko fekkee déwén du 1er janvier au décembre nos salaires ont été virés à temps ñu fayee ko salaire ba mat malgré le contexte dëkk bi ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant jërëjëf yàlla nañ yàlla boole dimbale ñu yëpp. xabaar bitim réew. xabaaru bitim réew dañuy dugg ci roppalaanam moom Cheikh Tidiane Sarr wër yenn ci ay réew ana ci ban réew lañ koy dooree. ca réew mi di Uganda lañ koy dooree wax ci li nga xam ne moo di wàccaayu élection présidentielle yi ñu war a amal soxna Ndeye Khady nag ñu war ko amal daal ni ki fukki fan ak ñeent ci weeru janvier bi ñu nekk nag ñu nekk nag ci wàccaay yi tombeek nag président bi ñuy wax président Yoweri Museveni nag di amaat wala sax di bëggaat juróom-benneelu mandat nag ca bopp réew ma nag mu war a jàkkaarloo nag ak benn waykat bu ràññeeku nag réew ma bokk ca. ku jëga ñu gën ko xam ci boobi waaye nag wante ak élection yooyu ak wàccaay bi nag ñu bari ci askan ba jamono ji daal soxna Ndeye Khady dañoo tiit ba jéggi dayoo nag ndax daal géñoo commencé di gis ay fitna nag na ñu dëkkee ca dëkk bi ñuy wax Kampala ñeneen ñi sax commencé di tiit ndax duñ leen fekk ci seen biir kër yi indi leen ay jafe-jafe bitim réew ca Cameroun moom fukki nit ak ñaar ñoo fa ñàkk seen bakkan ni ay bis ñu génn daal ci ab attaque boo xam ne nag attaque u kamikaze la daal ci village bi ñuy wax Mozogo nag bu ñu sukkandikoo ci ay xabaar yoo xam ne kilifa nguur ga nag ñoo ko fësal jaarale ko ci ñor wàllum communication ba nag di attaque boo xam ne maanaam song boo xam ne daal ñu ngi ko jiiñ kuréel gi ñuy wax Boko Haram nag song yooyu nag di fës lool ca réew mi di Cameroun nag dem sax ba ay civil di ci faral di ñàkk seen bakkan bitim réew ca Corée du Nord la ñuy jubali wax ci njiitalu réew ma nag ñi gën ko xam ci Kim Jong Un nag gannaaw bi nga xam ne kenn déggu ko ci élection présidentielle yi nga xam ne amoon na foofu la ca Amérique nag waxu ca moom njiitalu réew bu Corée du Nord nag daa jàpp ne daal États-Unis ñooy noon bu njëkk bu Pyongyang nag lu nu mel mu ngi ko yëkkati gannaaw bi nga xam ne ñu ngi doon amal seen juróom-ñetteelu congrès bu parti nag ñu amaloon ko niki ay bés bee ñu génn tamit profité na ci daje bu nu mel soxna Ndeye di wane ne daal Corée du mu ngi waajal ab sous-marin nucléaire bu am doole ngir gën a taxawaat euh, sàmmat kaaraangeem bu baax a baax loolu mel nag ñenn ci borom xam-xam yi jàpp ne ab euh, provocation la jëmale si Washington. xabaar yi. bitim réew ci tolluwaayu mbas bi di coronavirus lañ koy jeexale wax ci li nga xam ne nag moo xaw a nuroog coronavirus di beneen xeetu feebar fës nag wala sax feeñ ca réew mi ñuy wax Angleterre nag jamono ji feebar boobu gis nañ ko ca réew mi ñuy wax euh, États-Unis rawatina ci yenn ci ay état mu nekk feebar boo xam ne nee nañ daal moo gën a sax graaw li nga xam ne moo di coronavirus nag fës na état bi ñuy wax euh, Californie Floride Texas Colorado Pennsylvanie bu ñu sukk ci ay xibaar yoo xam ne këru xibaar bi nekk ca France ñu gën ko xam ci AFP. xabaar yi bitim réew. xabaaru tàggat yaram. xabaaru tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ndeye Khady maa ngi lay fay tey nuyu bokk auditeurs yi ñu sóobu ci xibaar wu tàggat yaram yi dañu koy dooree fii ci sunum réew ak championnat local bi nekk ñaareelu bëccëg bi ci Ligue 1 bi amal nañu ko nag Mbuur Petite Côte dafa ñàkk ci kanamu jàmbaax benn bal ci ñaar NGB ñaari tali am ndam ci kanamu AS Douane ñaari bal ci benn Dakar Sacré-Cœur ñàkk ci kanamu Jaraaf bu Dakar benn bal ci dara CNEPS Excellence ak Teungueth ca FC ndam demul ndam dikkul Casa Sport ak Ñaamur bu Louga ndam demul ndam dikkul AS Pikine am ndam ci kanamu US ñetti bal benn génération foot ak stade Mbour ku nekk benn bal nga dugal sa morom bu dee lu soxal wàllum Ligue de bi Wakaam dafa ñàkk ci kanamu Guédiawaye football club benn bal ci ñaar Duc ak Renaissance nam damul nam dikul EJ Fatick ak Sonacos ku nekk benn bal nga dugal sa morom Amitié FC daal di am ndam ci kanamu Demba Diop benn bal ci dara Kër Madior daan Thiès FC ñaari bal ci dara Linguère bu Saint-Louis am ndam ci kanamu Port ñaari bal ci dara Africa Promo Foot ak jamono bu Fatick ndam damul ndam dikul bëccëg national 1 Oslo ñàkk ci kanamu gendarme bu Dakar benn bal ci ñaar Thiaroye ñàkk ci kanamu Assur benn bal ci ñaar tout puissant jamono ak Racing ku nekk benn bal nga dugal sa morom UGB daal ñàkk ci kanamu Daaru Salaam benn bal ci dara Kaffrine am ndam ci kanamu Pépinière benn bal ci dara Gazelle bu Kédougou ñàkk ci kanamu ay Saloum benn bal ci dara Kayoru Fouta ñàkk ci kanamu Walidaan benn bal ci dara Cambérène ñàkk ci kanamu Olympique Ngor ñaari bal ci dara bu dee bi bëccëg bu bi modèle bu Mbaaw HLM bu Dakar ku nekk benn bal nga dugal sa morom Don Bosco am ndam ci kanamu kër yéeli ñaari bal ci dara Gengi Neew lapp-lapp yi métti bu Passy benn bal ci benn Daara ak Ndar Géej ku nekk benn bal nga dugal sa morom Asiko bu Sigicoor am ndam ci kanamu Tasito ñaari bal ci benn football ci jigéen ñi nag bëccëg bu njëkk bi ci D1 Kaolack FC nag dafa fekki waa Baobab ca Tambacounda daan leen ñetti bal ci dara Lycée Amet Fall ñàkk ci kanamu Amazone dara ñu waxtaanee wàllum CHAN 2021 bi door fukki fan ak juróom benn ci weru janvier bi foofu ca Cameroun nag af daal dinay fësal nag liste bi arbitre yi di def jàpp nañ ci nag jeune arbitre international bi di Issa Sy bi nga xamante ni nag guleet mu nar a dugg ci compétition bi ni mel keneen ki ci des nag di Malick Samba moom dañu ko mujj téye ni ginnaaw bi nga xamante ni dafa lajj ci test de stage ba bëccëg bu njëkk ci wàllum basketball ca championnat bi ci góor ñi nag AS bopp moom dafa am ci kanamu Saint-Louis basket club 72 68 Duc daal di am ndam ci kanam US Rail 89 65 Louga basket club daal di am ndam ci kanamu Mermoz basket club 50 48 Douane daal di am ndam ci kanamu Sibac 67 ci jigéen ñi nag bopp ñàkk ci kanamu saint basket club 37 72 UGB daal di ñàkk ci kanamu Jeanne bu Dakar 42 46 Mbour basket club ñàkk ci kanamu Débalok 42 63 Saltigué ñàkk ci kanamu Asfo 37 73. 2016 ñu ñëwaat fi waxtaanee wàllum assemblée général élective ca fédération bu ànd boole bi nga xamante ni dàq nañu ko ba jëmi jamono duel bi war a dox ci diggante Seydou Diouf ak El Hadj Badiane ñuy xëccoo nag poste président fédération sénégalaise bu ànd boole dootul am fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier gi ma ngoog ndeyxat yi gannaaw bu ñu la ñaanalee kenn daa yow jàmm lii moo gënoon a fës xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf.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 salaam bikum ñeen fukki doomu aadama ak juróom-ñeent la korona rayati Sénégal si juróom-ñetti fan allah l'observateur moo ñu ko xamal la solo yéen a kaay na ko ma yokkal la ci si ñaari fan fukki nit ak juróom-ñeent la fi rey moom korona juróomi téeméeru doomu aadama ak juróom-ñaar fukk ak ñett xam fi doomu jàngoro ji ba tax yéen kaay bi ne lu mësta am ci ñaari fan moo xam Sénégal kaay yu bari wàllaate gu bari ak bakkan yu bari yum fi faat le quotidien yéen kaay na leen moo taxit urgence yi nekk hôpital fi mu toll ni fa débordé fa rembat fa fees dell bay tuuru ak nit ñu am corona ba tax yéen a kaay bi ne wér gi yaramu réew mi fi mu toll ni nag fa gàlla góose dëgg nag professeur Bey bu sami ne li ma ci gën a jaaxal mooy fi mu toll ni surveiller kaay cas graaw yi fi mu toll ni fa jafe ndax fa ñoo bari vox populi ne yëf yi kay fa jéggi dayo lu jege ñetti téeméeru malaat ñu feebar ña ngi leen sampal soetaas maanaam ña nga ca diggante dund ak dee te bët bu ba fukk ak juróomi litar ci ay oxygène maanaam ngelaw loolu ñuy nokki rek di ko jaarale ci ay machine turbine yéen a kaay ne makki kay njiiti réew mi fi mu toll nii nag jàkkaarloo na ak rëdd wu xonq wi yow seetal mbas mi jàngoro ji bon ji korona fa tasaaroo ndakaaru Cees fañ koo jëlale léegi nag yeneen diiwaan yi ñu yéetee korona baa fa fees del centre yi nga xam ne fa la ñuy fajee ña xam korona yi fi mu toll nii fa fees del del del del del ba tax yéen kaay bi ne mbaa kon ne foogu leen ne yéen couvre-feu xam ngeen fi mu toll nii Dakar ak Cees rek la waaye yaakaar naa boo mooy tuut yeneen diiwaan yi des yëpp Sénégal nar Gossas professeur Bey bu Samy du ma leen na déet de ndax fi mu toll nii situation yi fa difficile yëf yi fa métti Mamadou Ndiaye jiite prévention na leen ñun koy fañoo jaaxle li jaaxal l'évidence yéen kaay nag mooy ne bi ñu amalee état d'urgence ak couvre-feu ak léegi terewut bët bu set corona bi gën a tasaaroo fay gën a yokk fay gën a farara yi maanaam wàññeekut benn yoon ba tax yéen a kaay bi ne léegi kon est-ce que couvre-feu bi ñuy def am na njëriñ ñu ngi couvre-feu corona baa nga yokk mi a rey état bu a kaay kuy tontu l'évidence na leen gis nga xëy couvre la xam na ñu bëri faalewuñ corona bi fa ñoo wax ne gëmuñ ko di jaay maa tay fa ñoo foog ne yëf yi ay tappale la ñooñu nag fekk soppuñ doxalin corona bi fay gën a tasaaroo l'observateur na ko pour dëggala li nga wax kaay ma jox la benn xibaar almadi ay doomu borom barke ñu seen bàyyi xam xaalis fils à papa faa dajaloo ak ay jigéen di bégee maanaam caaxaan ak fo taal seen musique ya naan sàngara sa jaxasoo mel nit ñu nekk ci réew tubaab rek jabar di noos moo taxi takk dereer ñeen fukki yam jàppoon ca ñoom tey lañ leen di defeere léegi nag ak lii bi kañ la fiy jóge ko bu juróom di gas téeméer di suul fa pax dana fa am xam na sénégalais yoo xam ne fa ñuy fontu turbine yéene kaay naka ku tedd ki moom sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalifa général des mourides xam nga lu def fa neenal màggal ak poroxaan gi naka noona Mbàkke Kajoor lépp ndax corona bi direct news ne fay laajce est-ce xarañteefu ko wër fa bi ci wàññi corona bi nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na tey ci altine ji assemblée nationale fa ñuy woteel njiitu réew Macky Sall loi am bi nga xam ne moo nar a jëm ci andi coppite ci état d'urgence ak état de siège su du quotidien moo ñu ko xamal ba pare nag na Macky fa accélérer assemblée pour ñu gaaw yokk dooleem ak sañ-sañam du Guèye na kenn ci farandooru Macky ne li ñuy tuumaal Macky naan fa bëgg a jël mbooleem sañ doole bu am ci réew mi di buur di bummi loolu du ma am ci réew mi ñi ko wax fa ñuy tuumal ak a yàq te opposant tax ngay sos di wax yenn yi si du quotidien mel ni kuraan ko waa léegi li am tey altine assemblée nationale moom lan la ndax mën nga koo lay wal fajiri yéen a kaay na ko xaaral ma yokkal ko ci leneen loo xam ne mënut koo lay donte Macky la faral dindi bi nga xamante ne moom la bëgg dindi moom Macky Sall ville yi comme Dakar ne maire yi dootu fa amati lépp ndax mënoo gañee Dakar ci ay élection loolu moom fan la ko teg nañ waxante dëgg rek Macky mandat Doudou Ndoye de nee na lu mën a nekk la te fekk constitution bii mi ngi fi soppi wuñ ko fekk lu ëpp téeméeri yoon Macky ko neex a samp ndëndam laaj réew mi kàddoom yaa ngi ci wal fajiri yéene kaay lii yéene xëy moom di ñu xamal ne chambre de commerce bu Ndakaaru fañ fay amal audit waaye téeméer ak ñaar fukki millions ak juróom fa naaw na mër ci ngelaw la kenn xamul fu mu xaw gaañ a nañ ko l'observateur moom di ñu xamal ne jaari saw élève a a mënu ko wax yow seetal wàlluk sàcc ak ray ak yu mel noonu daal mbiru crime gars yi daal foog nañ ne bokkut ci daal critique yéen a kaay na leen xëy bàyyi leen li ngeen di wax lu ne mën na cee xam Dakar Times ne man li ma jaaxal mooy directeur école ba mu doon jàngee ba réer lan moo tax ñoom ba léegi yéen ci yàbbi l'observateur na ko ma yokkal leen ci xam na beneen élève bu réeraat xale bu jigéen Leena Gueye la tudd Ouest Foire Ndakaaru fa la dëkk ak juróom benn la am fañ ko woon baayam nee na waaye ma ñëw ak yéen ci libération mi xëy di ñu xamal am na ay naaru libanais xam ne ñu ngi leen di tuddu ci yónnee xaalis diggante Ndakaaru ak Bayrut ca seen réew ci xanam goo xam ne jaarut yoon xam na ñeent ñun ca teg loxo ka ñu nar a teg loxo nag boo mooy tuut mooy njiital bati plus yaaw seetal enquête yéen kaay ne mbiru détournement yéen doon wax ca bati plus yëf ya gën naa garaaw ay enquête kat yu garaaw yu Amérique yi ñu ngi ci tànk njiital bati plus directeur général Samra wàllu financement ay terroriste international moom la ko américain yi soupçonné ne boo daal ngonk bopp bu mag la ci mafia xale bu jigéen ba yéen a ngi koy fàttaliku te ñu ko loxo nee na moom kontaan na ci boppam comme faxe ba weer ay ngonk bandi yoo xam ne fañ doon sàcc ay milliards yu du xaddu jeex ci trésoru Sénégal bii donte coow li nag amoon na fi Sénégal ba mel lu fay waaye comme FBI américain yi moom bokk nañ ci lépp ay leer Kër Adel Pambo Céphale lëkkaloog sédiment ñoo leen di jaay ay ginaar yu baax baax ay neen ay poussin aliment volaille ak aliment bétail ripaas li ci yéene kaay yi jaajëfal ko bu baax a baax moom El Hadji Seydina Omar Cissé jaajëfal ko moom El Hadji Libaas Mbaye nekkoon ci xayla gi jaajëfal leen yéen itam fare woon ci déglu bi ñaanal leen kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf. Le journal Ndeye Khady Sadio